eh kaay leen ñu waxtaan kaay leen am na loo xam ne dañ koy waxtaanee am na loo xam ne dañ koy waxtaanee parce que affaire u Ndella bii man mu commencé dépassé wala nga xam ne dafa am leneen lu wax ci biir lu dul li nga xam ne ñun moom la ñu gis wala moom la gel bi filmé dugal ko ci réseau yi parce que comprendre tout am na loo xam ne nag bu yàggee exagéré lay niru parce que mënuñoo dévoiler na kër Ndella amoon na kër yërmande ok ñëpp xam nañu ko état xam na ko ñu ngi doon maltraité bébé yi wala toppatoo wuñ leen la ca ok loolu ñëpp jot nañ ci état xam na ko léegi nag chaque jour mu am bu bees jaay na benn bébé boo xam ne mu ko jaayee wii millions ok am na ñett ñoo xam ne deewoon nañ mu suul leen te kenn ko ok am na ñoo xam ne bi ñu bu ñuy waaj a dee moo leen dencoon ci biir lavatrice bi ci kamoot bi ok chaque jour maanam da ngeen génnee article bu bees li ngeen di def si à vérifier wala maanaam yéen da ngeen di diaboliser sénégalais yi nii rek ñun fan la ñu nekk doo ba si amu